Ousmane Sonko Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye bu génnee kaso lan la mën a séentuwaat ci moom. di duggaat moom Cheikh Bara. maa la ko wax uh-huh. duggaat. moom ci làmmiñ bi la wala qu'est-ce que. Sall Gueye mi wax noonu. Uh-huh. xam na c'est trop xaar. bu ko seetaanee. bu gisee discours bi mu def noo ko gisee. alhamdulilah di ko nuyu nit baax suñu xarit. Uh-huh. di nuyu ñoom bu rek saa kii sa ñëpp ñaan yàlla mu def jàmm ci ñoom. ak képp koo xam ne yaa ngi yeewoo ca Mhm. waaye daal lu yóbboo daal mooy euh, li ma waxoon bu njëkk rek laay waxal. Mhm. li gën ci moom fi mu toll nii. Mhm. delloo ci waat Casamance. ci na noo xam Balla Gaye de mu demoon seeti président Macky Sall mais gis na ne askan ba nga gisee lu mel noonu bu def ko aussi moom génn mu ne nervi amul tey looy wax Balla Gaye de. en tant que jërë ngeen jëf ginnaaw bi ma leen nuyoo ñu faral seetaan Nouvelle Vision TV sëñ Cheikh Serigne Cheikh Niang mu nekk koo TV borom seet roxaan dinañ waxtaan ci Balla kay 2 dinañ waxtaan ci Cheikh Bara Ndiaye am na lu ci waxoon mu nekk wax yoo xam te ne gars yi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax te aussi yàlla may na ko li mu waxoon gis nañ ko dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu continuer waxtaan bi sëriñ Cheikh ñaan ñu lay ziar. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi leen di leen ñaan suñu borom ma def jàmm joo xam ne dafay sax ci Sénégal yàlla Sénégal sax si jàmm bismillah Serigne Cheikh Niane seetaanam vidéo bi xam ne moom nga defoon mu nekk vidéo bu am solo mm-hmm. dañuy continuer ak yow mm-hmm. euh, naka nga defoon ba xam ne Cheikh Bara Ndiaye dina dem kaso waaw xam nga dafay faral di wax am solo ne leen doomu war a xam la ñuy saxaar waxaane ya saxaar xam nga day xam lan mooy xew suba mm-hmm. xam luy xew tey xam doomu aadama bi bu ci ay jafe-jafe lan moo koy dugal bi sax daf la koy wan daf la wan dina la wan dina la wan dina ba nit ci ban bis ci lay am problème moom la génnee ne Cheikh Baara mii dina am problème ci lii bi loolu amee nag ay nit woo nañ ma laaj ma lan mooy sarax bi exactement ma ne solution actuellement ni amul ndax bi ma leen koy wax yàgg na te bi ma leen ko waxee boo leen defoon sarax yi ma godo yu gudd yooyu ku neen heure bii ci kàttanu yàlla julli euh, ko kaso waroon a agsi daal waroon a agsi fii Mhm. léegi lu ba wér mooy seetu rawaxaan mhm. yàlla dama ci may mhm. ma lay wax ne la nit ki ci boppam bu ñëwee dama ko defal seetu rawaxaan wala ma defal ko listixaar rawaxaan xam nga ñi ma defal listixaar rawaxaan moo ñi nga xam dañoo tukki nekk ci jihaad jàppal ne nit ki dëkk ba mu nekk dafa am rawaxaan léegi nit ki bu tukkee benn sëriñ ñoo laa seetal mu lay neex mu ne naqari sëriñ lu mu am am xam-xam warul laa seetal bëgg naa ñëw ci seet bi mais dafa am lu ko jiitu maanaam sëriñ bi bu seetalee wax sarax yëm gis ca seet ba mhm. yow bi nga xam ne yaa tukki nga def sarax ya mhm. doo gis résultat parce que ku kenn da ko seetal mhm. moo tax ñoom dañuy def lu ne génn xaalis fay lu ne waaye du gis résultat duñ gis résultat bëgg naa nga xaar tuuti bala ñuy continuer foofu parce que dafa am lu am solo balaa ñu ñëw ci liggéey bi ngay liggéey mais danoo gis Balla Gaye 2 Balla koo xam te ne seeti woon nga président Macky Sall ak ay moroomam mais Balla Gaye dafa génn def noo ko gisee. alhamdulilah di ko nuyu nit ku baax suñu xarit. Mhm. di nuyu ñoom bu rek saa kii ñoom ñëpp ñaan yàlla mu def jàmm ci ñoom. ak képp koo xam ne yaa nga yeewoo ci mhm. waaye daal lu yóbboo daal mooy euh, li ma waxoon bu njëkk rek laay waxat mhm. li gën ci moom fi mu toll nii ma delloo di waat Casamance moom Balla Gaye waaw bu sarax ba ma xëy def sarax boo xam ne fekk ay nit ñu toog na ñoo xam ne ay maire lañ ñu yëkkati sarax ba jox leen ko pour yàlla mën nga ca defal ndam. Uh-huh. waaye loolu ci kàttan yàlla buñ ci accès. Uh-huh. dina ko def. Uh-huh. loolu moom alhamdulilah rabbil alamin yàlla boole nañu man ak moom ak ñeneen ñoo xam ne war na ginnaaw bu ñu génnee ci làmb su ma ko defee dina ko def. ginnaaw ci làmb bëgg na noo xam Balla Gaye de dañoo gis mu demoon seeti président Macky Sall mais gis nañ koy xas di ko saaga bu nga gisee lu mel noonu bu def aussi moom génn mu ne nervi amul tey looy wax Balla Gaye de en tant que xarit. waaw euh, xam nga daanaka lu ci gën daal mooy yar ak teggin mu jiitu ci am réew yar ak teggin ci am réew yar ak doomu aadama bi ci lay am lépp loo xam ci li ci la bëgg am ku ne wa huwa xayru kanz wa xayru ma ihtaza bihi suufit amaa fi mu almadaxa da dal jiiraani kamaa yu xaribu ilal jiiraani ndax kooku dafa ne eh, eh, yar maanaam doomu aadama bu amee ay teggin nee li ñu wax am koom koomu àdduna woo fi daari xayru kams mu ne koomu àdduna koom àdduna mu ne bu fekkee koom la si Ahmad Bamba dana bu fekkee àdduna am koom la maanaam koom xaalis jàppal na yar ak teggin moom mooy koomu àdduna ak àllaaxira daa di waxaat daan wuy jibul madaxa lenal jiiraane mu ne ab yar ci boppam nit ki bu ko amee dafa waral ay tagg ci ay dëkkandoo léegi loolu demee ba waral ay saagay ndey ak lu mën di noonu te moom ku yaru la la saadix la ku am ngërëmal way jurum la na xam naa ci dara ku am waajurum jigéen la beneen bi itam ko am ñaan la mm-hmm. xam naa ne làmb it du ñàkk mm-hmm. am foo toll foo xam ne say mbir dafay xaw a waaye ci kàttanu yàlla sarax bi nga xam ne war na koo def bu ko defatee incha allah dina am ndam ci kàttanu yàlla macha allah mm-hmm. euh, am na solo trop ginnaaw bi nga jógee ci Balla Gaye 2 dina ñëw ci Ousmane Sonko da nga waxoon ci Ousmane Sonko moom tamit mu am solo Ousmane Sonko ay vidéo balaa gën a tàkk bu dugg kaso Euh, xam nga am na ci loo xam ne dafa fekk maanaam mu dëppoo biddu boobu dëppook sarawaan mm-hmm. wala mu dëppook sanatiir mm-hmm. nga xam ne doomu aadama bi ci boppam mm-hmm. am na ci loo xam ne bu koy def dafay tax ay dafay dox am na ci loo xam ne bis bu koy def mën naa am mbooloo waaye leen ba jëmmi jamono mbiram dafay taxaw complètement dafay taxaw Ousmane Sonko ci la guddiñ toll nii loo xam ne war na koo am war na koo mën a am parce que guddiñ toll biddu bi taxaw na par rapport ak ci gannaaw bépp sarax ba mu def dafay dal. ci guddi yu toll nii. képp ku ko yéene sarax nga defal ko lu jëm ci wàllum buy. wala nga defal lu jëm ci ay kàmmil alxuraan. Mhm. wala ay pittax yu naaw. guddi yu toll nii da am ndam léegi léegi. Mhm. parce que fi mu toll nii biddu bi dafa taxaw. Mhm. incha allah léegi bi ñu gisee Ousmane Sonko suñu dernière question ci moom bi ñu gisee Ousmane Sonko tëj nañ ko deux ans ginnaaw bi ko Adji Sarr tuumaale ñu dem ba ci biir xam ne lañ ko doon tuumaal amul. ñëpp jàppoon dañ koy bàyyi mu ñu di këram mais ko deux yoo xamante ne daf ko ban jàngat ka ci am. Euh, xam nga Ousmane Sonko à chaque fois dafa may damay wax ne Ousmane Sonko moom dafa ñaan. Mhm. parce que ñu ba dañoo jàpp Sonko moom Ousmane Sonko doomu aadama la boo xam ne yàlla daf ko bind ci ban. Mhm. ba pare boole koog rawaxaan bu mu nekkal boole koog biddu boole koog nature boole sakku ko ci bis nag indi ci ay waxtu. Mhm. kooku lu mu deeree ay xalif seen nit ñi dañ leen di ñaan di leen duggal xalwa waxutuma nag Ousmane Sonko waaye lu gën ci ay mbiram mooy. nañ ko wutal ay petax yu naaw. ay petax yu naaw yëkkati ko ñu saraxel ko ko. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla mbiram dina baax. deuxièmement dañ ko wutal ay kàmmi alxuraan yëkkati ko ñu saraxel ko bis bu ñu ko defee fii laa la ko teel ma vidéo bi Ousmane Sonko lay lu Ousmane Sonko Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye bu génnee kaso lan la mën a séentuwaat ci moom. di duggaat moom Cheikh Bara. maa la ko mm-hmm. lu waral lool moom ci làmmiñ bi la wala qu'est-ce a lan la. rawaan moo ma wan. rawaan man sama rawaan du ma te lépp lu ma wax rek dëgg la. lépp ci seetu roxaan waaw te nee naa la doomu aadama mm-hmm. ay loxoom mm-hmm. maanaam génn yàlla mm-hmm. nekkal ku la neex amal lu neex nëbbu ma say mbir ñëpp xam ne nëbbu ma say mbir waaye la doon nëbbu jëfandikoo nii ba mu feeñ bi dina ma xam ne ma kii seetlu lii ak lii la ak lii wax ci seetu rawaxaan jàppal dama seetal naar matériel ivoirien hmm. matériel américain tubaab ku ne seetal hmm. damay defal listixaara waxaan ba defal ko xalifa suñu mais wala ko koo xam ne kilifa la. mais booy seet ma la ko defalee ñu ko la tur laa lay wax. tur waaw bu la liggéey ma wax la tur ku la liggéey. fi mu bu fekkee def ko suul mën na la bërëb bu tel la ko suul. tel sëriñu tel moom ma def liggéey ba ñu bëgg a bu tel foofu la suul liggéey bi te lépp lu ma ci wax du rëy. Hmm. incha allah Balla Gaye mi ngay wax noonu mm-hmm. xam na c'est trop hard bu ma seetaanee dina ma woo téléphone mm-hmm. bu kër wala ma dem mm-hmm. ak ñeneen ak xam ne ñu Balla ci gën a ndaw ngeen jëflante Balla ci a ndaw xam nañ seetu gi ma yor nga xam ne lépp lu ma ci wax doomu aadama du dañ li saxaa rawxaan fii ba ilaayi mi abat abat fii lu ma la ci wax menn man maa la ci mën wax lu leer xamal tax lu ma aadama dafay am rawxaan am biddu am nature nature mooy tabixa bu amee loolu ba pare dafay am ci bis bu mu judd ba pare am jinne jum àndal ba pare am àndandoo boo àndal muy rab sëriñ bi bu la waxee na nag kaay ma nga def sa saraxu biddiw léegi yàgg sa biddiw boo leen jubóowee nag yàgg sa ba pare rab bi boo defee sarax ba def sa saraxu rab bi lay yàqal nag ba pare sa nature ci boppam laaj sarax te sa nature amul sarax nag boobaa situation yi dina léegi boo defee sa nature def sa saraxu rab def sa saraxu biddiw ba ba nga nekk rawaxaan bi fan lay fajoo moo tax seet baax na waaye nit ki ko seetalee ci biddiwam wax ba pare ko yàqal génn saraxu biddiwam ba pare rawaxaanam jubloo ko nag doo armak cinq moo nekk ci moom bu ñaari baaxee trois yi bon nag bu ñeent yi baaxee benn bi bon nag waaye léegi doomu aadama ba tey maa ngi la laajal baax na naturam baax na rab bi mu nekkal lu mu ak lépp loo xam ne bëgg na ko waaye kër gi dëkk moo am rab nag ba waxaan mooy du mënul ñàkk ci doomu aadama li si xaar waxaan mooy du gën a mooy mooy seet bu gën a ci seet seet yi ngeen gis ñi yëpp ay seetu foo la rek seen xam-xam dafa am a mu yem ndax seet boo xam ne boo seetee tey day gisal doomu aadama bi li ay mbiram lii la ak lii ak exactement xamoo doomu aadama bi ban bis la war am problème loolu seet yi mënu ko génn loolu foog nga yor ay jinne dëgg wala nga ay rawxaan ñu tegal la ay nga mën ko jàkkaarloo nga a jàkkaarloo moom jox la tam lépp lu mën a abat abat du am na solo trop dañuy continuer ak yow ba gis parfois ngay wax sa rawxaan ginnaaw bi mu génnee sarax yi sarax yi kan la ko war a jox kan ak kan ku la neex nga koy jox wala. xam nga ça n'est pas bi maanaam bi ko seetalee ba noppi wala nga defal ko ba noppi ndax dama wax ne nit ki nit ki. Mhm. mu man d'accord ma ci yow nga tudd voyage nga yëkkati xaalis jox ko sëriñ mu defal la seet. Mhm. loolu d'accord ma mhm. loolu ku la seetal ak ku doon ci àddina. ku dàq ñaan bu la seetaloon sarax yi mu gis sa ñaan nga bo la ko waxee doo ko gis résultat lii man ko wax nga sangu di nga saraxe parce que loolu la gis ci seet ga te yow la seetal kooku dañ ko defal li saxaar ku tukki kay la moom ki nga xam ne tukkiwul moom ci réew mi na nekk mm-hmm. kooku mën ko defal seet waaye man boo ñëwee damay sàkku na photo sa loxo bi nga yónnee ma ma fajaanoo ko dan won ni image bi jël nga lépp doomu aadama sarax bu ci nekk bu nekk ci ay trop trop mhm. sarax boobu ku ay nekk ci ay jafe-jafe moom moo ko mhm. parce que jox ku nekk ci bànneex mhm. yaa ngi dégg parce sarax boobu ku nekk ci ay trop trop moom moo euh, ba tey jii dañuy continuer ak yow dañuy gis mbirum noob nga ciy yëngatu noob ak tasxiir ndax benn la déedéet noob ñaar ñuy sëy kenn du ko def bu tax bu amee jëkkër bul ko nopp bu amee jabar bul ko nopp sëriñ si xamuñ ko xamewuñ ko seen xaalis dina jeex ci àll bi parce que bu xasee ba jàkk ja xas benam ci jàkk ja rek loolu amu fa lu tax bu loolu passé tasxiir moom la moom la arab di wax tasxiir du koy wax tàggat mooy par exemple nga bëgg ci benn tubaab wala mbaar alal wala américain bu jox la alal jurul jeex loolu lañu wax xirtal da nga ko yónnee mbirum rawaxaan fii laay toog am na ma ko yónnee fat vingt quatre heures mooy daal mu jàpp ñoo jox la xaalis bi léegi immédiatement turam nga may yónnee ak fam dëkk quartier ba ko mbirum am na ma ko sànne vingt quatre heures mu la abal yan façon loolu damay dëj damay sëf damay kànnaar damay teg damay sikar vingt quatre heures ça ne panique ci yor ak mu yor ak nature bu mu yor hmm. parce que man yooyu xam naa dafa am seen xam-xam fi mu yem xam-xamu biddiw di question man dama ko tuutal xam-xam boo xam ne bu sàcc ñëwee sàcc ba génn kër ga mënoo ko wax fu sàcc ba nekk a lam sàcc fan la ko sàccee xam boobu wax yàlla man du sukkandiku xam-xam bu may sukkandiku mooy xam-xam boo xam ne xam sàcc bi ban la nekk kan la sàcc ak nan nga ban sarax nga mën a def ba mu ñëwaat loolu rawaxaan rek moo la may moo la ko may. dañ connecté yow ba tey damay gis ñu bëree bëri def ci nga bayre doomu aadama mën naa am biddu boo xam ne dafay amaale bayre nga xam ne du jar mi ñaan doomu aadama mën naa sangatu am bayre doomu aadama mën naa def saraxam am bayre waaye bayre eh, ku mu arrangé mooy koo xam dafay wut mbooloo boo xam politicien wala artiste kooku dina soxla bayre deuxièmement ki nga xam ne dafay jaay nga xam ne dafay bëgg nit ñi di ñëw di jënd demal ci sëriñ bu neex bay rey jaay demal ci sëriñ neex jox lépp loo yor jox jaay doo ko am loolu mënul nekk doo jaral parce que kooku ñarte lañ ko war a defal defal ko loo xam ne ci place bi lépp lu mu yor da koy jaay waaye boobu itam ba tey kooku nga bëgg koo defaral bay rey jaay ba pare place ba am ram nag léegi problème dina am loolu doo am parce que yaa ngi koy defaral waaye rab ba moom moo ko yàq léeg-léeg nga defal nit ñaan waaye rab bi moom moo ko yàq léegi am na ci rab yoo xam ne dañuy yàqal doomu aadama ba lépp lu mu yor rek daf ko yàq ndax rab yooyu am na ci rab yoo xam doomu aadama ba amoon milliard du ci jënd du ci mën a jënd yére na ci ñoo xam ne weer mën nañoo fayeeku ay millions wala ay junni yu dul jeex waaye bu ñu ci téye dara nii balaa ginnaaw subaa jot lépp day jeex ba dañuy mujj di leb am na ci ñoo xam ne mënuñu am mënuñ ci am kër seen alal mënuñ ci am kër ñii mënuñ ci am oto bu baax ñii mënuñu loo xam ne seen xaalis fii laa ko dugal ñooñu ay dafa am ay coupe de rab rab yu yoo xam ne ci lañ bokk rab sangat moo du sarax moo koy jënd li koy ci biir ci baatin waaye du suwaahir rab bu ñëwee ba xam ne nit ki rab bii la yor ci ne ñu naan rab diggante bu nekk rab la mooy différence alhamdulilah xam nga rab mhm. moom la olof di wax rab waaye rab àndandoo rek àndandoo la boo xam ne dafay ànd ak doomu aadama di ay mbir mhm. jinne nag yàlla suñu borom moo ko de am na jinne na jinne yu baax mhm. jinne mën naa nekk jinne jinne soyaati yoo xam ne dafay nga xam ne nit ki mën naa di faju wa sonn di gis benn résultat nga xam ne dañuy seetlu ba jàngee alxuraan rek da ngay gis ne ñoom dañuy yuux wala ñuy say naan bàyyi ma nangam ak nangam ñooñu boo xoolee ñoom ñoo jinne siyaati bi euh, ku nekk dañuy yàq say di yàq say activité bu ko yow mën nga di ñaan lu fone doo gis benn résultat te fekk moo ko dugg bu defee Sénégal fi mu ñooñu ñu leen wooyee mooy fajkatu fajkatu rab bi te fekk ne kooku ay jinne moom dugg loolu lu ma mën di ka am bu ñëwee incha allah dina xam lu ci war la ci kàttan yàlla am na solo trop bu ko dañuy gis xam dañuy soxla bayre place bayre place dañ ci yëngatu dama koy defar mhm. damay defar bayre place mhm. waaye bayre place amul solo à chaque fois dama koy wax ne la nit ki bu amee bayre place mën naa woo nit mhm. waaye du jaay parce que kooku soxlawul bayre kooku njarte la war a soxla njarte lépp da nga koy joxe dama allah dañuy continuer ak ba tey dañuy gis ñu bari bëgg dugg ci néegu sëy ne mën na am jëkkër mel ni dafa am leen di yàqal loolu rab moom rab bu bon rek. am doom doo am jëkkër doo hmm. am jabar loo am mu yàqu. Hmm. boo bëggoon a jënd kër mu tere la. Hmm. boo bëggee jënd oto mu tere la di la ñaawloo njort foo à chaque fois sa bopp bi di tourné sa xel bi dafay jaxasoo. loolu lépp rab la rab la rek parce que dañuy sa jabar mën naa am rab boo xam ne booy seq ak moom daf koy téye waaye góor moom tant que nga boo trois fois nekkoo góor góor da benn yoon nga yëg nga ne ngëm nga yow Mm-hmm. boo noppee nga ngëbaat léegi ne ngëbaat nga muy ñaar yoon mm-hmm. ba pare nga ngëbaat muy ñetti yoon mm-hmm. alors nga waaye tant que defoo loolu déggoo ko moo tax ma ne la lépp dafay dellusiwaat ci ñun seet gi seet na ñun bu boo ñëwee ñu ñu soxla mooy sa loxo ngay yónni bu ma ne ñaari yi nga xam ne ñaari yi ngay jël ba foto ko ñaari loxo yi nga foto ko ni yónnee ma man loolu dina ma soxal bu defee ci laa xamee kii nan maanaam seet gi may seet ci kii lan ak lan ak lan ak lan bu amee ngóor da koy génne wax la ngóor bi lan mooy saafaraam lan mooy solution bi incha allah. Euh, macha allah euh, dafa mel ni fi amoon ci waxtu jeex na mais ba tey dañuy continuer yow ci mbiru kaaraange yan façon nga ciy joxe. kaaraange damay def sangatu kaaraange. Mhm. damay joxe moom ma kaaraange boo xam ne nit ki ci duggee da ciy génn waaye na fekk moom mu bokk foofu ndax am na ñoo xam ne waruñoo sangu mhm. ñii waruñoo takk. Mm-hmm. ñii waruñoo naan mm-hmm. ñii waruñoo saraxe xanaa ñu saraxe te yàlla tax mm-hmm. am na ñoo xam ne ku ci nekk lay doxal seen biir kon saraxe bu saraxe déedéet xanaa nga sarax nga xam ne sarax da yàlla wala nga yéenewaale ci ku faatu am na ñoo xam ne dañu seen aaju faj ba tey seen aaju faj yu tax loolu fekk seen ngeen nekku ci sarax gi nga motuma ne la seen saxaara wala seen waxaat dama dégg un xam ne façon cangat bi ñu cangat bu leen tëj. waaw mën na laa jox sangat kër gi nga nekk nga koy sangoo kër gi am rab léegi sangat gi mhm. kër moo am rab. léegi si jëkkër jëkkër jabar dëkk kër ba histoire histoire doo jeex mhm. wala kër gi nga soof mhm. wala kër rab baa rek ci gi nga jàpp ne yaa si solo si dégg mais rab fa rek mooy jaxase kër gi. di fi yore njaboot gi waaye dafay am. moo tax xoolal ah. dafa doon ñàkk a mun mu ñàkk. may jël lépp yaa indi ko ci seen bi ma. ci seen bi euh, suñu dernière question foofu nit nan lay xamee dafa am rob rob bu nekkee ci moom. seetlu. kaw mm, nga seetlu ñu wax ñu wax la yan lan ak lan ak lan nga lay def. li mm-hmm. nga xam ne bii ak bii moo nekk. mais du ñàkk am na muy def ci sa yaram nga yëg ko nga xam ne kon war ngaa xool sa yaram. dañu mm-hmm. defal la ko boo waxee lu mu lay def. Mm-hmm. buñ la waxee lu mu lay def. da nga xam ne lii la ak lii ak lii. jox lay. jox lay Mustafa diye bir yönetici Maşallah. Ben bu gıybeti katılıyorum. même murid daf xam yooyu am yoo xam ne doomu aadama mën na koo doon nga ne dafay nekk bu feeñ nit ki mën naa am problème nga xam ne pour mu faju du wér wala émeraude bu nëbb émeraude bu nëbb sax moom moo jaraw rax yëpp prostate loolu doomu aadama bi am na ci yoo xam ne ay sarax la xam nit ki bu sarax wala rek dafay tane am na ci feebar yoo xam ne mën ngaa fajoo fajoo ba waaye bu génne si sa rek da ngay tar incha allah am na solo trop suñu daaneel kii fi lay bàyyee sarax yoo xam ne ay sifa bu génne sarax rek ci mhm. changement bi da ngay teel. incha allah lay tàggatoo. ñu ñaan suñu bopp ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am jàmm Sénégal si si jàmm. Mhm. asalaamaaleykum.